moom boobu laa tudd ah. Euh, président association formation insertion des lutteurs du Sénégal. waaw li ñu fi dajale tey en fait euh, tey association formation insertion des lutteurs du Sénégal moo ñëwaat parce que yàgg nañ ko def euh, yàgg nañu am partenariat ak état muy le ministre la formation professionnelle ànd nañ fi ak ONFP formé woon nañ fi quarante lutteurs nañ fi aussi ak waa. waa waa waa waa waa direction de l'horticulture ànd nañ fekk ah, waa ANAMO aussi formé nañ fi trente lutteurs en sérigraphie bu yàggul 3FPT financé woon nañu vingt lutteurs ci sécurité garde corps rapproché tey nag 3FPT ñëwaat euh, financé waat ñu soixante lutteurs ci sécurité garde corps rapproché ñu war ko tàmbali tey lancement bi tey boo gisee lancement bi xumu ni suñu papa Mbaye Guèye Tigre de Fass lañ ci rendre hommage ndax moo nekkoon suñu vice président tey moom lañ ci rendre hommage Euh, di ñaan dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin mu nekk lu am solo loo xam ne tey association bi leen tax a jóg mooy mbër yi am formation ba pare am métier. mu nekk formation boo xam ne tey ñoom bu ñu xëyoon di ko defale seen bopp dinañ fay cinq 500 wala cent mille mais avec nous c'est gratuitement kooku nag ndimbalu 3FPT euh, lañ. ñu leen di lancé parce que tey mbër yi ñoom ñëpp ñu ngi wootee de gauche à droite bëgg bokk ci formation yi kon nag ñu ngi lancé message le président de la république le ministre de la formation professionnelle ñu gën ñu dooleel parce que y a plus de plus de quatorze régions au Sénégal xale yëpp bëgg bokk ci formation bi ñi ci sant bu yàlla bu baax tey soixante lutteurs la ñu la ñu la ñu la ñu formé c'est pour onze jours ñi ngi war a tàmbali tey war a pare le vingt quatre incha allahu rabi waaw léegi euh, bu ñu paree en fait ñun dañu signé ay protocole de convention ñun association lañu association lañ boo xam ni dañoo am yéene xale yi am xëy ñu lëkkaloog le ministre la formation professionnelle mu boole ñoo ay direction am le ministre Dame Diop boole ñoo ku mel ni 3FPT ONFP direction de l' emploi ANAMO 3FPT tey li moo ko financé gis ngeen sànq waa direction de l' emploi ñu ngi woon ci biir signé nag ñoom convention ñoom it bëgg nañ gunge bépp xale bu ñu formé rek mu am xëy maanaam association bi looloo ko tax a jóg am na ci xale yoo xam ne am na ñetti mbër yoo xam ne tey ñu ngi liggéey ONFP parce que biñ leen formé pare kii di caatu yara yarax amandaw ak euh, Tidiane Faye tey nekk nañu ay fonctionnaire d'état am na ñeneen ñoo xam ni am na yeneen ñeneen ak feneen fu leen dugal mais yéene gi ñu am mooy président de la république ak euh, service yi nekk ci état yëpp ak secteur privé yi xale yi buñ leen formé ba pare ñu jëlal ñu leen ñun dinañ leen accompagner ci loolu ba ñu jël leen franchement di gërëm bu baax aussi le ministre de la santé tey mu yónni fi attaché de cabinet am Abdoulaye Diouf Sarr mu teew fii wax dëgg yàlla moom it li ko tax jóg muy gunge mbër yi ñu jéem a xool nañ la leen di jàppale ba ñu mën a am xëy fii fiir Ndakaaru incha allah ci kàttanu Yàlla Sénégal yëpp. waaw waaw Mbaye Gueye euh, li ñu mën a wax ci moom mooy suñu papa la suñu papa la joo xam ne amuñu fayam maanaam li ñu def nii sax mënuñu koo fay mais nit ki bu fekkee ànd na yow. defal lay teraanga ku ne xam na ni mbay Gueye fi làmb toll nee nañ million moo ko fi njëkk indi mbay Gueye yóbbu na làmb foo xam ni ci modeste ci générosité ci baax amuñu fayam ànd nañu moom fu ne gunge nañu nekkoon vice président bi dañ koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm taxaaree ko àjjana ñi mi fi bàyyi nag mu sama papa Ibra Mbaye di sama papa Abouli euh, euh, père bëgg fàllu ak association fils ak sama papa sëñ Babacar Mboup di gërëm bu baax Malick Gueye mi nga xam ne rakkam la jóge fi léegi di gërëm ñoom Moustapha Guèye famille yam yëpp famille Guèye yàlla na leen yàlla may fan bu gudd ak wér yéene gi ñu am daal mooy rendre hommage bi ñu koy rendre hommage yàlla nañ ko ko yàgg defal ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaw association bi daal tey la tàmbali formation bi war a pare la 24 chaque jour de 8h à 14h ñu ngi fi di gën ñaan état mu gën ñoo teg loxo parce que lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que dañ nekk jamono goo xam ne nii xale yi dañ leen war a dimbali ñu la lutte ndax mbër yi dañu am jom bëgg nañ dara bëgg dimbali seen ndey bëgg dimbali seen bàyyi kon nag kooku ñu ngi ciy gën a lancer message président de la République am nañ ci yaakaar ndax ab tey Djiby Samb li ñuy def nii muy attaché ci cabinet Abdoulaye Diouf Sarr na ko kii direction de l' emploi yónnee aussi note na ko waa 3FPT tamit gis nañu kon nag dañuy ñaan yàlla ñu gën ñoo teg loxo rek gën ñoo jàppale gën ñu accompagner parce que li ñu ñor mooy quatorze régions yëpp ñu wër fépp rek ñu former la jàppale la ba am xëy loolu moo ñu tax a jóg